bismillahirrahmanirrahim rahim bokki àdduna bi nga xamne yene yéen ngi ñuy seetaan fi ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ju sel ji mbolo mi ngeen jàkkaarloo itam di sëti mak ña andon ak Cheikhul Khadim tënk ci kurel gu ñu wax Touba li Abdul Murid comme ko Serigne Mbacke leral rek waye ñu xamne it suñu jotaay bi bu ngeen ko gisee xamne yoonu murit ño fi daje waye seen yitte jëpp moy seen mam yu tedd ya andon ak Cheikhul Khadim te am jëmm joo xam ne lum am micro ko ko may mu dem bay dendale suñ maam yi ak yeneeni kaddu yoo xam ne suñuy teggin may ñuy jar ñu bëgg a jël suñu kaddu nag ñun mbooloo mépp xam ne képp ku mën di doon du ngóor soosu mesere rek xaw ma nu mu tuddati waa jooju mesere ñu xam ne loolu mu wax ci ay maamam rek la ko la la waaye amu ci suñu maam ndax sëñ Tuubaa andu kenn ku bon sëñ Tuubaa defarut wuyu sëñ tubaa defarul bandi sëñ tubaa sëñ tubaa defarul faq te moom am na loo xam ne seex sépp maase nañ di ko laaj mooy ki nga xam ne daal sàccu nag dugg ca kër sëriñ tubaa gi ci njaareem mm-hmm. sëñ tubaa seexal ko mu génn ña ko doon dàq jébbalu ca moom gànna na génn wax maami kan la mm-hmm. ci mbooloo mi mbooloo mi yëpp nag lu mat juróomi téeméeri seex ñi ngi dajaloo di xaar mu wax maami kan la maami kan ay sàcc bi euh, ñu xam ne it euh, ñi nga xam ne yéen a ngi ci télé yi di waxtaan jamono ju nekk ñi ngi gis ne yéen a ngi mag ñi bu baax a baax ndax dañuy gis ngeen netli xissa yo xamne bulo diwa yebulo barap sanggam gaynde sangam te li ngeen wax lepp dara ci deug mhm. kon ñu xamne mak ñi andon ak Serigne Touba ay gor lañ won yu set wecc mhm. ba jaayante jafé lañ jaayante ak Serigne Touba te kenn ku nek judd bu baax nga nekkon ci ci jaamu yalla nga nekkon ci ragal yalla nga nekkon kenn ku nek meuna sippi sa dara joj ci karamu cheikhul xadim mhm. kon nak ko xamne sa mam da amul judd bu rafet wala nga japp ne maam keneen amul judd bu rafet da ngay waxtan ci sa waye mami jambour yi ngeen waxtane di ci wax ay safaan man na ñak yeen ñi wax kenn amu ci sa mam amu ci juddu bu rafet kon ñu xamne ne serigne touba yi yii kenn ko xamantene sine da nga ci jël kaddu di ci wax lenn lu jaaduwul ñu xamne mbolom mbooloo nak ma sa maase nañ takoo doon ben fas yéene seen ci défendre ak talibé ak lepp waye nak ñu xamne mayuñu kenn ko xamne sal da nga yëkëti sa kaddu di ko yëkkati ci mag ñi ci lu wër yow gan na message ñi ngi lay alerte di la wax ne la loo am mag ñi ànd ak Serigne Touba te xam ne mënoo liggéeyal dara dara dara dara ci Serigne Touba te jaaree ko ci mag ñi te tant boo mën di waxtaan loo waxtaan ci Serigne Touba faaw nga boole ci mag ñi te mag ñooñu ay gor lañ woon yoo xam ne yu set wecc kon nag ñun jàppoon nañ ne yow day lépp loo xam ne dañ koy wax mag ñi mu leen di naqari du jaare ci sa jëmm ji waaye sa kàddu jii nga yëkkati am nañ ci mbette lool lool lool lool seex sépp nag maa di ko naqarlu ñu xam ne tant boo toog di waxtaan ak seex bu la mën di woo na nga xam ne ku ku doya dal mag ñi moo toog di wax والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته